من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بي بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أقول المسلم لا يظلمه ولا يعزله ولا يعقره التقوى ها هنا ويسير إلى صدره ثلاث مرة بحسب امرئ من صر أن يقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم من عن أبي هريرة رجلا جاء أبي هريرة radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm xaala wax na moom abi hurayra mu ni xaala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na laata xaasadu bu leen eñaanante abu hurayra moo ni jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni yonente bi wax ni laata xaasadu bu leen eñaanante wala ta naajasu buleen leen yeddonte maanaam ab julit warul eñaane mbokkum julitam wala ta naajasu bu yeddonte mooy di yeddu sa mbokkum ji leen ngir xam am ay ayibam pour man koo wilipande wala man koo weer loolu ab jule du ko def mooy li ñuy tuddee agent secret mu ne wala tabaxadu bu leen bañante yonente bi salallahu alehi wa sallam mu ni ab julit warul bañ mbokkum julitam wala tadaabaru bu leen gannaawalante ab julit warul wan gannaaw mbokkum julitam mu ne wala ya bex bu mu jaay baadakum kenn ci yéen ala bay baadin ci njaayum ka sa des maanaam nga fekk ñaari jullit yi taxaw di jaay di waxaale jubboogun par exemple kii fay ka ci ñaar téeméer yow nga ñëw fay si ñetti téeméer wala ñeenti téeméer wala sa mbokkum jullit di jaay ab parcelle wala bu ab tool nga dem dégg ñi fay na ko ci nangam yow nga ñëw par exemple mu fay ci un million yow nga jóge fële ñëw fay ci deux millions mu ne loolu mbokkum jullit waru koo def waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy jàngal loolu ni wa kunu nekk leen ibadallahi di jaamu yàlla ixwaanan di ay mbokk ni al muslimu jullit axul muslimu mooy jullit mooy mbokkam jullit daal moo ni yonente bi sallallahu alayhi mooy mbokkam laa yazlimuhu bu mu ko tooñ ab julit warta tooñ mbokkum julitam wala yaxzuluhu bu mu ko ber warul ab julit warul ber mbokkum julitam wala yaqiruhu waru ko xeeb ab julit du xeeb mbokkum julitam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy jàngal loolu mu ne at taqwa mu ngi fi bi wax loolu nag wa yasiru mu joxoñ ila sadrihi ci dënnam salasa marratin ñetti yoon waaw mu ni taxu ak ragal yàlla daal mu ngi fi bi muy wax loolu nag mu joxañ ab dënnam ñetti yoon waaw bi xasabi imri'in min sarrin an doy na ci mbonte si ab jullit mbokkum jullitam bi xasbi imri'in min sarrin an yaqiru aqal muslim mu ni doy na ci mbonte ab jullit daal di di mbokkum jullitam ab jullit warul xeeb mbokkum jullitam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal kullu muslimun bépp jullit xaraamun xaraam na mu ne kullu muslimun bépp jullit ala muslimin ci moromum jullit xaraamun xaraam na dammuhu deretam wa ak alalam wa irduhu ak ngorom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bépp jullit na ci moromum jullitam muy tuur deretam mu ne xaraamun xaraam na damuhu deretam ab julit warul tuur deretu mbokkum julitam mu ne wa maaluhu xaraam na ci moom timitam muy jël alalam wala muy sàkk sàcc alalam wala mu koy sàkkal pexe alatu alalum mbokkum julitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne loolu ab julit waru koo def ab julit daal warul tuur deretu mbokkum julitam warul jël alalam rawatina wa irduhu ak ngorom maanaam warul jël di yàq daru moroomam jullitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñuy tere loolu waaw ab jullit daal warul jël alalu mbokkum jullitam warul tuur deretam warul jël deram di ko teg lu ñaaw waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy tere loolu rawaahu muslim xadis boobu ne muslim moo solo mu ne abi hurayra te jële nañ abi hurayra radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm xaala wax moom abi hurayra woni haala waxna rasulullahi yonente bi yàlla bi sal allahu aleyhi wa sallam la ta xaasadu bu leen añaanante wala ta jaasasu wala ta naajasu bu leen asanse krante mooy yëdduwante ab julit warul añaane mbokkum julitam wala mu koy yëddu di xam ci moom ay ñaawteef pour man koo tooge wala mu koy waxtaane wala ta baaxadu bu leen bañante wala ta daabaru bu leen gannaawalante wala yabeex bu mu jaay baaxdakum kenn ci yeen ala bayin baadin ci njaayum kase des wa kunu nekk leen ibadallahi di jaamu yàlla ixwaanan di ay bokk ni al muslimu jullit axul muslimu jullit daal jullit mooy mbokkam la yazlimuhu bu mu ko tooñ wala yaxzuluhu bu mu ber wala yaqiruhu bu mu waru koo xeeb a taqwa ragal yàlla mu ngi fii wa yasiru mu junja ila sadrihi ci dënnam moom yonente bi sallallahu salaasa maratin ñetti yoon mu ni bi xasabi imriin min sarrin an yaqiruhu axaahul muslim mu ne doy na mbonte wala doy na ñaawteef si ab jullit muy xeeb mbokkum jullitam yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañuy tere mu ni ab jullit daal warul xeeb wala muy bañ wala muy xeeb mbokkum jullitam kullu muslimun bépp jullit ala muslimin ci jullit xaraamun xaraam na mu ni bépp jullit daal ñett yi xaraam na ci moom dammuhu muy tuur deretam ab jullit warul tuur deretu mbokkum jullitam wa maaluhu warul jël alalam wala muy sàcc alalam ab jullit warul jël alal mbokkum jullitam wala muy sàcc alalam mbokkum jullitam yonente bi sallallahu alayhi dañuy tere loolu wa irduhu war wala ngoram wala muy yàq ab wala muy jël wax ju ñaaw di ko teg ci deru moromum jullitam ba dootul mën a génn fenn loolu ab jullit waru koy def mbokkum jullitam rawaahu solo na xadis boobu muslim من المسلم ما صلى حديث بابو إن أرود إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته